gannaaw bi nga xam ne yàlla dimbali ñu ba ubbite jumaa gi masalik ñu naan mu jàll jàmm ak salaam loolu tey damay wax ne képp ku di ab sénégalais waxatuma un musulman sax waaye ndax gis ngeen ñi dut ay musulman sax di wane seen mbégte ñu bare bari wax nañ ne lii kat wax dëgg yàlla modèle la boo xam ne bu ci Sénégal royee waxuma la musu religion bi waaye réew mi day dem ci day dem ci kanam waaye l'essentiel li am solo mooy ci euh, ubbite jumaa ji dafa dafa bari yu bare bare bari ci daje yi ci daje yi ci daje wax naa ko léegi premièrement mooy victoire bi nga xam nit ku ñuul am na ko l'islam am nañu ko waaye particulièrement nit ku ñuul waaye tamit euh, religion yi religion bi muy lis muy muy diine l'islam da ci yëkkatikuwaat yëkkatikuwaat na ci côté yi bu mënti doon waaye nag ba ci wàllu politique bi wàllu politique bi tamit euh, gis nañ ne am na ak yëkkatiku gu ci amaat maanaam réussir boo xam ne am na lu jafe woon ci at yu bare bare bare bari yoo xam ne depuis mën na wax Macky Sall toog ci euh, maanaam bopp réew mi Sénégal donc ak jubóo di ko na ci réew mi muy diggante mag président Abdoulaye Wade waaye dañu gis ne euh, masalik gi naan démb bi mu ñëwee am ndam ci diine ji waaye daa amaan ndam ci politique waaye politique yi damay wax ne lislaam daa amaan ndam ci ñoom ndax li gënoon a jafe ci réew mi démb moom la ñu réussir ci masaliku ji naan ci jàkk yàlla suma subhaanahu taala ji ñu am réussir bu mag boo xam ne euh, jubóole nañ fa président Macky Sall président Abdoulaye lool nag dafa nekk lu am solo muy bit bu bu rëy boo xam ne euh, l'islam marqué na ko religion marqué na ko te ñu bare bare xëy na jàppoon nañ ne wàllu religion ma wàllu l'islam Euh, surtout lu ñu war a gannaawal la wala boog loo xam ne day day day day day day day tardel am réew loo xam ne yu bare bari am na ay dégg-dégg yoo xam ne ñoo xam ne sax ay musulman jàng nañ waaye xëy malgré que culture euh, occidentaux yi xaw a yóbbu leen ci benn côté bañ jàpp ne religion mënut a régler dara waaye tey démb yaakaar naa ñëpp gis nañ ne wax dëgg fa yàlla l'islam am na ndam waaye amaan ndam ci way politique yi amaan ci ñi nga xam ne am nañu benn gis-gis ci l'islam na nañ genn gis-gis diine donc ma démb ndeysaan maa ngi seetaan interview bu am solo bu suñ Cheikh Abdou Bal def vraiment mu am joxañ bu am solo bu mu ci bu mu junju boo xam ne mi ngi ko jëmale ci les intellectuels intellectuels yi nga xam ne xëy na as diir ci ginnaaw doon nañ xaw a sikkal bay wax ay islam confrérie wala xeeti mel noonu waaye mel na yàlla subhaanahu wa taala tey daa ñëw wan leen à travers ouvrir inauguration Massalikul Jinaan wan leen na leen te kat li ngeen doon wax euh, loolu lépp dara amut li ko weddee ngi ni mooy. li ngeen doon wax naan république bi day deltu ginnaaw wala def nangam tey république boobu ñu jiitu tey l'islam tey jubóole na leen l'islam tey dajal na nga gis cardinal bi nga gis chrétien yi liñ ci gën a marqué waat nga gis euh, euh, euh, maanaam union bi nga xam ne am na ci biir réew mi Sénégal nga xam ne avant ñu inauguration Massalikul Jinaan coow li bari woon ci dëkk bi jàppal bàyyi école Saint Jean d'Arc bi nga gis yeneen ak yeneen nga gis réew mi. ñii di wax fi mag ñi ñi def nangam nga gis des fois diggante livre Iba Der Thiam boobu donc livre boobu ñu ngi profité kenn du ko bàyyi noonu ma jàll faaw livre duñ ko retiré waaye rek coow li xawoon na bëri waaye teewut da ngay gis ne macha allah tabarakallah euh, inauguration Massalikul Jinaan ñëw réglé loolu lépp maanaam coow amatut dara amatut donc kon ña nga xam ne kon ca gannaaw doon nañu wax naan euh, islam confrérie wala boog république mi ngi deltu ginnaaw ndax nangam nangam nangam tey jii yàlla gàccal na leen wan na leen na leen ne bi di l'islam euh, dafa méngoog ñi nga xam ne noonu la jamono dox waaye ndax lool la lislam yonent salaasam daan daan daan doxale ci Médine yonent salaasam li mu ñëwoon mooy jubale xeet yi jubale askan yi daana fekk giir yu bare bare yoo xam ne xeex nañ ay téeméeri at ay cent ans mu ñëw jubal leen euh, boo leen ñu ànd nekk benn def état boo xam ne juif yaa ngi chrétien nga népp dund jàmm ak salaam donc l'islam Sénégal loolu la xam l'islam Sénégal du l'islam fanatique du l'islam euh, maanaam extrémisme déedéet l'islam bu dal boo xam ne ni yonent salaasam jàngaloon noonu la ñu jàngale donc kon ñu ñëwaat wan leen ne leen kon kat réew mi bu ñu bëggee mu dox faaw ñu tàbbal ci diine ji rawat na sunu mag ñu baax ñi ndax Sénégal l'exception sénégalaise mag ñu baax ñi tax ñu ko wax te démb feeñaan na ni ma ko wax saa su ne kon nag euh, à partir d'aujourd'hui war nañu am beneen euh, man beneen beneen jàppin wuñ jàppee nag suñu mag ñu baax ni kon jot na sëkk way politique yi jot na sëkk euh, les intellectuels soit soi-disant intellectuels donc kon jàpp naan modèle bi nga xam ne suñ mu taxa wane na ko yoonu Mouride wane ko donc jàpp naa ne modèle boobu modèle la boo xam ne ñoom ñëpp war nañu ko saluer modèle la boo xam ne ñoom ñëpp war nañu ko téye ndax yemut ci tabax jàkk kese waaye ci développement ci nan lañ mën a fexe ba économie Sénégal jëm kanam duñ tàllal kenn loxo nan la nañ mën a fexe mooy politique ànd nekk benn jàpp naa ne loolu yëpp gis nañ ko ci inauguration Massalikul Jinaan donc nag kon li ñuy jeexale mooy fexe ba juba gi nga xam am na diggante président Abdoulaye Wade ak ak ak rek ngir yàlla nañ ko gën a feddali mu jëm kanam ndax intérêt réew mi Sénégal ndax ñoom ñaar buñ juboo Euh, maanaam réew mi dana dox lépp dana jëm ci kanam waaye am na ñoo xam nag maanaam bu ñu sañoon jubóo googu daam ñu xam nañ ko biir am na ñoo xam ne ñu ngi ci waaye côté Macky Sall am na ñoo xam ne xam ne sax nekkuñu côté boobu dañoo toog di seeta waaye bu ñu sañoon réew mi di pëccoxoo ndax am na maanaam maanaam dégg ay scandale wala dégg xiiroo ngaaya fe daa mel ne moo leen dundal donc nag kon ñu ngi leen wax ngir yàlla jëmmi yàlla sunu borom subhanahu wa taala comme eh, ñu rus yàlla sunu borom subhanahu ndax ci ab néegam euh, lañ lañ defi jubóo gi Euh, ci bis bu tedd mu bisu àjjuma lañ defee jubo gi ci kanamu xalifa bu tedd muy Cheikh Mouhamadou Mountakha ci lañ ko defee ci kanamu jullit ñëpp kanamu Sénégal yëpp kon rikk ngir yàlla nañ fexe ba loolu mu nekk lu dëgg loolu mu nekk loo xam ne lu am solo la lu ñu wéyal la doon.